dafa def programme de grève <laughs> le douze dina ñëw Dakar alors uh-huh. gis ni uh-huh. euh, sànq wax exactement nga ne uh-huh. euh, li nga xam ne que moo di waa Pastef dañ leen qualifié de délinquant exactement euh, léegi patriotes yi ñooy ay délinquants yi Sénégal doo mën ne ñëpp ay délinquants la ñu mais suñuy suñuy xool rek si réalité je parle pas des patriotes man je suis patriote Fallou mais son ñu ànd ak moom sont des patriotes. ñoom non d'où le parti passif. mais moi je suis patriote. alors que je suis pas du parti <laughs> passif. alors mais c'est exactement Est-ce ni mm-hmm. nous nous, ñooy à mm-hmm. chaque fois qu'on convoque un nga de Maurice Sonko. Mm-hmm. au full vous dites, drainer si Ousmane Sonko est-ce que des fois du leen un titre Est-ce que nous nga wax xam nga à chaque instant bu génnee nit ñi le pour et le contre pourquoi nit yi génn corrélation bi mooy li ma wax en premier lieu la manipulation tout le temps li muy def làqatu ci ginnaw askan wi genn len genn len genn len parce que dañ ma bëgg ray parce que dañ ma bëgg fat bo xolé ni askan wi doon génnee auparavant genné tuñ ko dé qu'on se dise la vérité. ni ñu doon génnee auparavant genné tuñ ko dé pourquoi parce que au fur et à mesure ñun ñuy dugg ci askan wi ñun tamit di léralal askan wi li nga xamanteni moy les faits de Ousmane Sonko. Mm. ces faits n'est rien d'autre que la manipulation la manipulation day démarrer si bu ñu la woowee procès nga taxaw ne duma dem tant que ñëw leen gunge ñëw leen gunge ma ko xamanteni buñ démé yow duñ la poser question man duñ la poser question à quoi sert ma fay dem je préfère tok diko suivre ci télé bi mo mo ma fukki junne yoon pourquoi man ma fay dem bu ma fa démé lan la lay lan la fay wuti ce qui veut dire que mom même il a peur il a peur de par menace, menaces ah. il menace et après il devient peur le moy problème am day menacer. après il devient le peur bi nga xamante ni moom mooy wax kaa leen gunge ma dañ ma bugg a rey ñëw leen bu leen ma seetaan ñëw leen gunge ma suñu àndee boo ñu ma rey suñu àndee dina yéen ñëpp di ngeen gis nangam nangam nangam à la minute nu à la dernière minute nu muy mujjee nit yi dañuy toog seen kër ñoom seen bopp ñoom ñoo ko def marché bi passé cité kër góor gi fii ñoom ñoo téye seen caméra di xasante lu tax génnu leen ay ay jigéen ngeen ay góor jigéen ngeen yéen a pousse Ousmane Sonko fi yegg ngeen ko war a génn rayanteeg moom mais ngeen si fii ngeen toog kër yi mais nit yi tamit dañoo am yeneen préoccupation yu ñuy doxi tolluñ fi tout le temps bu ñu euh, euh, bu ñu organiser euh, procès Ousmane Sonko waru wuy ji après ñëpp daw ànd ak ñoom ñëpp dem wuti ko ñëpp dem topp ko tout au début c'était une manipulation parce qu'il disait aux gens gouvernement bi dañu may sàkkal pexe gouvernement bi dañu ma bëgg a rey gouvernement bi dañu ma bëgg a yóbbu kaso gouvernement bi dañoo bañ ma doon candidat gouvernement bi dañoo nangam à la dernière minute mm. tout le monde savent que ni gouvernement bi parewuñ pour def dara Ousmane Sonko mais moom si boppam moo tiit te xamatul fu muy jëm. nit nag mënoo di accuser nit ñi nekk si réew mi. ne mm. du la juger. Mm. mënoo nekk di topp nit di leen di leen jiiñ dëmm ne non doo leen gis ñu yëy euh, yàpp mënoo nit ñi doo leen di doo doo di leen accuser ne ay reykat lañ ba pare di nekk de l'autre côté mënul nekk lépp loo xamante ni gàtt sa la moom mu waxoon ko il n'a qu'à l'assumer c'est simple comme bonjour. su mais maintenant le reste après on euh, verra. diminution gatsa, gatsa. Mhm. Euh, Pape moi peut-être euh, soo ma defee ma def la. Mhm. guerre la président Macky def ko. mais mhm. guerre la mais guerre bo gis ñaari nit a koy la guerre à la guerre Moi gatsa gatsa. la guerre à la guerre nañ jakarlo gatsa. sa gat ma def dina la def lu ko raw. mais ku tok ba gouvernement loo ma def dina def lu ko raw c'est c'est ñàkk xam-xam fofu lay commencer quand même quand même nak dama ne ñàkk xam-xam fofu lay commencer bañ ko bañ ko bañ bañ bañ bañu tojee dañu bañu todé vitre auto ba retirer ko est ce que def nako président bañu todé vitre auto ba retirer ko yóbbu ko ba këram ñu ko duggal koli duggal nak def nako président de la république gat sa gat sa kay da fay neex boo ma dóoree fàllu ma dóor la hmm. boo ma tooñee ma tooñ la boo ma mbéjee ma mbaj la boo ma saagaa ma saga la boo ma wéexee mu wéex la bu nekkee si terrain bi du football loo ma boo ma dugalee ma dugal la ba ñu ne ko coppet ci otoom. Hmm. yóbbu ko bi biir kër ñu ne ko dugal mu dong dong ñuy dugg est-ce que ba mu xëyee def na ko président de la république boo déggee di woo nit gàtt sa gàtt sa da woo sa moroom si gàtt sa gàtt sa li wolof wax dëgg la borom caq borom baatu ne ndox xeex ak borom caq. te moins mooy yoon. mais Sonko sonal président Macky Sall quand même. non sonal sonal sur quelle base man sonal bi di man sonal gisoul parce que moi je suis du côté du président de la République te nom. sonal xam nga sonal moins lan. Il est l'opposant le plus recherché. L'opposant le, plus recherché, est, il n'est pas l'opposant le plus recherché. Il est il est l'opposant. Il est l'opposant. Il est l'opposant le plus recherché. Il est l'opposant le plus manipulateur. Il est l'opposant le plus qui n'a pas mom mon tollu mom moy où nit ñi rek yow Sonko mos nga un mois de presse pour la première fois def ci parce que ba xamatul fan la ku demul ba xamatul fi nga nga la wax rek dafa mu il part à Ziguinchor pour dire que non damay woote présentation des travaux de la mairie de Ziguinchor voilà il veut ressortir mais le fi nekkoon moom moo fi nekk dara changé bi koy di wax en 2021 ko li fi amoon dootu fi am. Hmm. gëmu ko mais loolu mo exister li fi amoon dootu fi am su fekke mom ça lui ça l'arrange mu tok si ça l'arrange pas mu continuer di def nguur gi di continuer di def sen liguey je parle bien de nguur gi gouvernement bi. Hmm. continuer di def sen liguey et continuer di def c'est quoi garantir la sécurité des biens et services de cette population du Sénégal c'est tout simplement que ça maintenant mom su fekke dafa bëgg a nak wax. na wax su fekkee dafa bëgg a génn gasa gasa gi commencé waat parce que gasa gasa gi moom jeex na gasa gasa gi jeex na ba mu tax ah, <laughs> non ah, jeex na tàkk ah, ba mu taxawee de non ba mu taxawee de ba mu taxawee de dañ ma sotti produit dama feebar après mu jël perfusion lonk parce que ñun ba tey kenn lonk lu ñu perfusion ñun ba tey kenn dugalu lu ñu vinaigre ñun ba tey ñun ba tey ñun ba tey kon donc moom gasa gasa moom xaw ma kan waaye moom moom jeex na comme moom jeex na nag dafa bëgg a trouver beneen stratégie nee na dañ ko doon rey léegi après bu demee mais Ziguinchor il va nous dire peut-être les travaux ci yi mu doon def la travaux manipulation travaux social Mame Mbaye Niang travaux social colonel travaux social magistrat travaux moom loolu mooy travaux moom su fekkee am na lu muy présenté Ziguinchor mooy taxaw naa si presse xas naa Macky Sall ça fait partie des travaux de Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor mm. naa si presse tuumal naa woo na ma projet daw naa ça ce sont les travaux de Ousmane Sonko taxaw naa si presse tuumal naa colonel tuumal naa magistrat woo nañ ma daw naa ce sont les projets de Ousmane Sonko taxaw naa si presse né dama dañ ma bëggona ray défal nañ ma perfusion déwuma ça sont les travaux d'Ousmane Sonko mais gis mo lu mu def. alors euh dañuy daal di euh, peut-être mhm. wéyal euh, lata euh, ñoo génn ci chapitre yi nga xam que moo Sonko. tout le mhm. temps yeen ci leader. Mhm. dañuy foré ci ay wéyu wéy que ni da leen méré parce que tout le temps soo leen euh au lieu que ngeen défendre li nga xamné que moo ay projet tout le temps da ngeen miser aussi ki nga xamné que moo Ousmane Sonko. Sonko wax na la ko. nee la man mosuma toog talaat plateau waxoo ko Ousmane Sonko maa ko bañ bu ma koy wax sax du ma tudd turam yaa de cela une semaine benn euh, partisan mu ma koy attaqué ci biir plateau di ma jiiñ da ngay nangam da ngay nangam mais garaawul. man maa ko bañ ba bu ma toog si plateau du ma tudd turam xaw hmm, pourquoi. parce que tey ñun on a on a beaucoup de choses à au niveau du Sénégal. Hmm. parce que mënuñ la dénk réew. Hmm. nga am des projets d'envergure yi mag saal di def ci réew mi. war a wax ci BRT. war a wax ci TER war a wax ci PUDC war a wax ci Promoville war a wax ci yeneen ak yeneen ak yeneen waa defal ndànk rek <laughs> taxaw fa eh, taxaw fa eh. di wax ci waxu kenn nit koo xamante ni ñun gëmuñ ne sax tekki na dara ci réew mi parce que bu fekkee dañ la jox benn mairie mënoo ko gérer buñ la joxee réew yaakaar naa day wàcc si sa kaw man moo tax waxu Ousmane Sonko naturellement ma dem ci plateau parce que ça fait l'occasion génnee na benn affaire au niveau du fait e sax xam nga naa liiruma ko hmm. maa ko bañ du ma koy suivre hmm. maa ko bañ ba duma ma déglu ay laay fam mm. parce que c'est une personne ba nga xamante ni ba ma gëmee ne day manipuler. Mm. laa pare ci moom. Mm. procès Mame Mbaye bi nit ñee may wax rek qu'est-ce a dit à Mame Mbaye Niang. parce que nee na Mame Mbaye Niang dafa sàcc. les les les milliards de Prodac. Mame Mbaye Niang dem yóbbu na ko procès. mu daw. dem ne noo yoraguma preuve yi te moom moo taxaw ni preuve yaa ni sama téléphone lañ ma woo suba suba suba ma yóbbu ko man koku bu ma ko suivre lan la koy suivre parce que gisuma lu ma mën a gisuma lu ma mën apporter gisuma lu ma mën indil gisuma leneen lo xamanteni ni tax des fois bu ma toogee si plateau quand on parle ma koku sax duma tuddu tudd turam xam nga lu tax du may bëgg tudd turam je préfère évacuer sa page continuer ci benen page bo xamni momu moom ay même am importance muy les réalisations du président de la République son excellence Macky Sall notre parti notre coalition et la situation politique au niveau du pays. Euh, mhm. exactement. maanaam mhm. d'une na ko procès na ko di procès moom ak ki nga xam ne que moo mais au euh, delà de son Mame Mbaye Niang. Mhm. Euh, il faut am na ñoo xam ne dëggal nañ ko ku si ni il est dans votre sang. entre autres entre autres. mais ñu gis ni.